maam yaa ngi yëngal moom amul loo ko mën a doo ko dégg. mën caa dem. waaw man ba mën caa liggéey waaw loolu nan nga mën a def maanaam ku mel ni loo nekk nekk noonu nii mel ni yaa ngi xam nga sëriñ moom liggéeyal ko mooy lam la digal nga ne ci rek fu ne tey bu la nee ba nga jébbaloo ci moom xam nga dana la dénk moom bu la nee del julli waxtu juróom yi saa yu jotee loolu mooy mooy xidma ci moom. manam serigne serigne xam nga serigne tuba wax na ca ca ca majmuwa ba ne li tax mu bëgg la da wuté yow li tax nga bëgg serigne bi miftahu mahabbati cheikhi laka serigne bi wax na ne moy mu gis la ngay lu ca lam la digal ci ci ci lu bax jaamu yalla yi ak lu jëm ci yalla bu fekkee ne gis na ne yow ya nga cey dox sa kem katan di ci def yité loolu mom moy sabab mu bëgg la mom ba tax na loolu rek mo am solo léegi ak yoy yëpp loolu mom ci ci coobare la la aju ñaara bi itam addiya yónte bi sax dañ ko ko daa jox ngir sàkku ak cofeel te haadaw te xabbu ni ko ni ko yónte bi sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu du du ceegee ni mooy sababu xidma boo ko deful rek xidma woo déedéet nit ki mën naa bañ jox benn addiya fekk addi masalan tey boo maanaam boo boo jullee jàng fatiha wala dara ñaanal ko sa sëriñ lool fi ne jox nga ko addiya xam ne mu ëpp solo addina li ci biiram fi ne mu ëpp solo adduna li biiram sëriñ bu la joxe bu la bu sore itam loolu lépp aw yoon la maanaam lam la digal nga ne ca ak maanaam bañ ko génn fenn loolu mooy mooy xidma léegi nag bu la wooyee nag dé dénkaat la neen lool nga nekk ci loolu rek mi <laughs> nga mi nga sëñ ba